taalibe bàyyi Ñas yi bés bi ngeen doon xaar yegg si na journée internationale bëgg bàyyi liggéeyal bàyyi ak gërëm Baay le 29 Zilhijja yemoo ak le 27 juillet 2022 ca Koosi Baay ay kan moo woote bés bi ni mel sëtu bàyyi Ñas la mate ku sëkk sa ko ja boroom xam-xam la ku am itte la ku laa kooku mooy xaadimu saaxibul fayda Cheikh Baay Maamoun Ibrahima Ñas Abdou mazharu zaati dundam gi yëpp fa cee tànn liggéeyal bàyyi moo tax cofeel gi taalibe yi am ci moom xamul dayoo ñëpp rafetlu taxawaayam aalim la faqih la aarifu billahi la lu mu xam bàyyi ko ko gënal soo ko bëggee ndax sax jaaree ko ci bàyyi fàggu dara lépp lu mu xam bàyyi rek kenn du moom itte bi mu am ci dekkal koosi ak xidmal bàyyi xamut ci dayoo zalika nag fadlullahi yutihi man yacha importance bés ba doy na ci la bàyyi ñes bindal boppam ne raaytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama ja jaani wa ana fi koosi chaqa tariqahu min bustaani caalan wa nazala fi bayti walidi fi koosi wa maahu aboubakar wa naama ala firaashi wa kuntu ana salisuhum wa xaadimuhum wa makatha ayaaman wa waqaa sururun munqatiu nadir oh loolu mooy sirru li nekk ci dekkil koosi te ci la xaajo yi soxla yi lépp di fajoo ren nag li bees ci bés bi mooy journée internationale bëgg baay liggéeyal baay gërëm baay bés biñ koy amal ca guddi ga ca la ñuy amal gàmmu koo si bàyyi ay ñaari bés yu màgg ya nañu lépp yiw la ndollal yokkute ginnaaw bu mboolem njabootu maam Ibra Fall borom dëkk bu koosi imaam bu koosi jëmmal seen kàddu ci Baye Mamoun ngir ñu boole ñaari bés yi ak daaira man baul fayda ca koosi ak mboolem ñu dëkkee koosi loolu yëpp nag mi ngi am ci ndigalu alxalifa cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahima Niass di ci xaar teewaayam ak taxawaayam ak mboolem njaboot ak baay gi ak imaamul akbar imaam cheikh Tidiane Ali Cissé ak mboolem njaboot njabootu Sida Ali Cissé Babul Hadara Cheikh Serigne Mbaye Niass Cheikh Omar Touré Cheikh Ibra Fall Cheikh Ousmane Ndiaye Cheikh Baye Ma Abdou Niang Cheikh Hassan Dem mboolem muqaddam yi taalibe yi si biir ak si ak mboolem jullit ñi ña ngi leen cay woo bés bi kenn xamul ngànt kaay leen ñu dellu koosi man baul fayda 29 zilhijja 27 juillet al yawmul aalami li mahabbati wa xidmati mawlaana cheikh al islam alhaaj ibrahima Niass wa shukrihi ay cheikh Baye Mamoun Ibrahima Niass ayyadaka allahu wa nasr sarak neexut ba neexut waaye sag nga ci pays bi royu waaye nga ci taalibe yi